ndeysaan Baye Mandione ngoog su ma gisee Baye Mandione taxawal ak Lamine Bamba Baye Mandione taxawal non dama kontaan waaw taxawal taxawal noonu waaw bi fan yi waaw vraiment yëpp seen xol seddaan na ndax moom day koo xamante ni kenn la wallahi Lamine Lamine bu la jigee rek nga yaakaar yow gën a bëgg wallahi wallahi talaahi wax dara taxul ma koy wax yàlla moo tax ma koy wax saxul ma suukar yaa ngi dégg mais émission jongante bi Sénégal képp ko yàkkam yoon wallahi te ñëwaat na kilifa yëpp commencé woon na di seetaan xam nga yàlla nag yàlla lafal cër yàlla ar ko yàlla sàmm ko ci barke Sénégal Mohamed moom moom dama am chance dugg ci biir famille chance bi am dugg ci biir famille mooy dama ko defal émission dugg ci mbokkam yi ñi mu bokkal meen ak geño dugg ci ay am di jàmmam dugg ci biir mbokkam xam fi mu jëlee famille ak fi mu leen dugal gis nga moom bokk na ci ñi nga xamante ne déglul bu baax li la wax Baye Mandione bu yoboo nga xool ko parce que ñaan waajur parce que ci xam dara man maa dugg ci biir famille ba papaam ne ma bés ni ki tey yow yaay taawu famille bi yàlla na bàyyam tekkee àjjana ci barke alxuraanu karim moom moom man ci moom laay xool ci moom laay roy ndeysaan ndeysaan abagaa naa yi baax yow xam naa naa nit ñi xool rek wallaahi ci moom laa gisee. dëgg la mais lan nga wax si combat ba Bébé Saloum. ah combat ba Bébé Saloum damaa far moo tax damaa far moo far. dama déedéet déedéet. bàyyi ba joon xaaral ma far. damaa far. man maa ngemb ko. xoolal man maa koy ngembee Dakar ko Caaroy yóbbu ko Kaolack bés boobu damay sol xoolal ñëw di këpp bàyyi ma doon ay saafara non damuy dëgg ah. non maa ko sal yu ay rakam lan ay damay indi bàyyi ma njoon teg ko dem jëlee bébé Saloum teg ko woo arbitre ne ko nañ mat si diil mais xoolal bërki démb dafa am lu ma wax sénégalais yu bëri nag avenir bi jox ma raison. parce que dama taxaw ci biir télévision Futurs Médias jongante ma ne leen Modou Lo ak Boy Niang taxaw na. signature bi dimanche la. waa VAR bi anamu. xoolal brassaaru lamb ji. reportage mi ngi sama loxo. keroog ba may man ma jot. léegi du ma la bàyyi ana Balla Gaye 2 premier janvier ba tey jii février kenn dégg ko la. bu lëloo war na. waaw mais non ñoo faral ñoo faral am na leen coow. waaw mais lan nga ñu mosal tuuti rek ci combat boobu. non baax na am nañu coow instant bii naaj na am nañu coow. incha allah ñoo faral. ñoo faral. macha allah. ah boobu bu wér yow boo woon sax dem. lamb suñu lamb. Lamine Samba ngoog Lamine Samba ngoog Lamine Samba. Tá bravo, waaw ba pare dafa am fit du sàcc du fen xam na fi muy teg tànkam dafa am fit fonce mooy suñu père moo ñu moo ñu teg ci góor boo xam ne suñu père yi suñu não yi bu ñu ñëwee moom li mu war mooy liggéey rek dëgg la baax incha allah dëgg la ñooy ñëw Iba man bokkuma ci journaliste yi ñuy fay pour ñu wax man keroog ba may taxaw di wax ne Balla Gaye ah, asafula Modou Lo ak Boy Niang taxaw ne ñëpp a tiit mais suba face à bi bu amee ba ma toog. Ah. sol ñetti xob yi. Ah. ñu xam ne lépp dëgg ne lan laa la laaj. bu lëloo wàcc na. waaw mais lu ma daan daan Sa man xaw ma fu ma jëm. maa ngi war a jël euh, Eumeu Sène. Euh, Sa ngi am euh, rëg-rëg. Balla Gaye bu lëloo wàcc na de.